sunu diggante ak Gambie jëflante gi diggante ñaari réew yi ak askan yi dañuy dalal professeur Mansour Aw miin ngeen ko ci démb tey euh, du ci gan macha allah léegi tey mu doon ci consultant professeur Aw di jàngale euh, nekk itam professeur d'histoire ñu ngi lay dalal jàmm euh, ci émission démb tey am ci mbégte ni nu ko daan amee saa su nekk. jërëjëf Fatou Thiam Ngom man ma am mbégte di. Eh, tontu say question ndaxte ay question yu am solo ngay posé waaw di nuyu nag eh, seen auditrices yi ak seen auditeurs yi hmm. jërëjëf professeur Mansour Aw ñu ngi lay gërëm yow itam ci disponibilité bi alors euh, waxtaan wi dañu koy tàmbalee euh, ci lan moo nekkoon confédération bi sénégambienne ban genre jëflante la woon bu doxoon diggante ñaari réew yi xam nga yàgg naa di la wax ne euh, ñun historien mm. bu amee événement bu xew dañuy set contexte bi maanaam euh, mbir mi lan moo ko indi lan moo ko indi boo seetee lu ko indi maanaam yi nga xam ne Euh, moo dox ba mu ñëw mm-hmm. da nga ci mën a am compréhension bu yaatoo yaatu euh, xam nga mbiru confédération euh, baatu confédération rek boo ko déggee sur la plan juridique ni nga ko mën a tekkee moo di ñaari état mm-hmm. yu bokkul yu décider ànd nekk benn am ay compétence yoo xam ne yii dañ koy bokk waaye itam nag ku nekk yitam am li ngay doxal à sa wàll loolu mooy un état confédéral bokkul ak état fédéral bokkul ak état unitaire nga xam ne comme Sénégal nii ni mu ne ñu mu nekk nag kenn état unitaire la. Mm-hmm. waaw li amoon nag suñu diggante ak euh, Mali moom kooku fédération la woon. Hmm. fédération waaye suñu. waaw suñu diggante ak euh, euh, Gambie confédération la maanaam ñaari état yu bokkul hmm. yu décider ànd. waaw fee dañoo booloo nekk benn réew. fii ku oh. nekk réew nga ba noppi lëkkalook sa morom. lëkkaloog sa morom loolu mooy confédération confédération baat bi xamu ko mën a tekk ci ay wolof yu wóor mm. waaye confédération loolu la indi maanaam ñaar yu bokkul ñu mën a ànd nekk benn mm. waaw loolu am na solo ndaxte euh, Sénégal ak euh, Gambie Euh, yàlla dafa leen boole mhm. euh, ci seen géographie seen géographie te nag euh, ñaari dëkk yi benn la woon rekk tubaab yi ñoo fi indi xaajaloo lii ñu tuddee ko Sénégal lii ñu tuddee ko Gambie mhm. xam nga yow démb rek bi ñuy waxante am na benn euh, carte géographique bu ma la envoyé mhm. euh, di la won ci ay jamono booboog léegi mhm. mu di deuxième siècle après Jésus-Christ loolu yàgg na maanaam yàgg na lool yàgg na ay junni at tegal mu amoon benn euh, nit ku dëkkoon Égypte ñu tudd ko Ptolémée Claude Ptolémée géographe la woon mu mu dessiner carte du monde ci biir carte du monde bi mu lëkkale fleuve Sénégal ak fleuve Gambie ñu nekk benn ñoom ñaar ñépp ñu ànd lëkkaloo ak le fleuve Nil bi nekk Égypte xam nga loolu yàgg na. boo euh, yéegaatee sax ca gannaaw euh, jotuma la génneel texte yooyu mais ay texte la yu am solo yoo xam ne yii ñun bi ñu nekkee étudiant dañ ko doon jàng ak suñuy professeur moo di li ñu tuddee l'ouest africain antique maanaam lu jiitu ay téeméeri at avant la naissance du Christ moo gën a jàgg encore mu amoon ay nit ñoo xam ne ay boroom gaal lañu ñi ngi jugee fi euh, ñu tuddee Phénicie Phénicie baa bi boo ko déggee tey jii moo di fi Liban nekk Liban dëkku Liban ci boppam hmm. dafa amoon ay ay xeetu nit ñu fa nekkoon xarañ nag lool ci defar ay bateau ak navigation defar ay bateau du wër uh, ak seeni nit di créer ay colonie di samp ay colonie colonie boo ko déggee dañuy ñëw samp fii seeni nit ñëw feneen samp seeni nit ñëw feneen samp seeni nit nooñu lañu def def ba daane ko wër Méditerranée bi wër Europe occidentale ba ñëw wër fii ñu nekk ni mu di Afrique occidentale hmm. ñu bind nag ay texte di nettali ñoom li ñu gis ci yoon wi navigation bi nit ñi ni ñu bindoo li ñuy lekk li ñu am ci ay koom-koom ak yooyu ba ñoom seen bopp. Hmm. ñii di commerce ak ñi nga xam ne fekkoon nañ leen fii boobu léegi am na ay julli ak ca gannaaw ñuy wax jëmale ci fleuve Sénégal di wax di jëmale ci fleuve Gambie boobu taa Sénégal ak Gambie dañu nekk ay yoon yoo xam ne yii ñoo doon mën a may nit ñi ñu dugg ci biir Afrique ngir mën a am or or bi ngay gis nii ak di ko dégg nii mhm. dafa mas nekk loo xam ne lii euh, euh, wa nit yi dañ ko mas a soxla mhm. ci àddina bi ndax li mu lay représenté dafa fort ci transaction commerciale yi li muy représenté yitam comme trésor dafa bari mhm. de sorte que dañ ko doon ut ko ut fi ñu ko doon utee nag moo doon ngay jaar ci fleuve Sénégal wàcc ñëw ba ci dëkk bi ñu tuddee léegi ngalam. Mm-hmm. lu baatu ngalam yaa ngi koy dégg. yaa ngi dégg ñu wurusu ngalam. Mm-hmm. ñeneen yi di ko jaare ci Gàmbi du dugg ci Gàmbi du dugg ba ci biir pour man di egg fa nga xam ne moo di Tombouctou. ci Mali. ndaxte foofu itam ci bambuk ak bure dafa nekkoon ay béréb yoo xam ne yi dafa bari woon or donc booy seetlu diggante Sénégal ak Gambie dañu nekk ay réew yu yàgg fleuve Sénégal ak fleuve Gambie dañu yàgg am solo nit ñi fa dañ daa jaar ngir mën a dugg ci biir Afrique man fa am or te itam nag ñi doon ñëw gis nañu nit ñi gis ci ñoom ay màndarga yoo xam yi rafetoon na lool gis ci ñoom ay richesse yu bari lool bu du rekk or bi ñu mën a wax mais dafa amoon ba li ñu tuddee ivoire ivoire bi ngay wo gis nii tey bi inu turu Côte d'Ivoire mhm. ci Sénégal gii la marché njëkk a sax hmm. waaw kon nag yooyu dafa baax ñu ko di ko fàttali Sénégal ak Gambie dañoo yàgg bokk géographie nit mhm. ñi daa yàgg di ñëw di leen seet ñoom itam ñu ànd nekk benn eh, waaye tubaab yi ñëw xaajale leen ñu war nag bi ñu jëmee seen indépendance war a ñoom itam ànd ak seen fula ak seen fayda ni ñu nekk woon démb ndaxte nit ñi benn peuple lañu ñu war a mën a ànd nekk benn am na nag ay jamono man bind naa ci ay article mu génn ci des revues scientifiques bu IFAM bu di la province of Senegambia the province of Senegambia maanaam am na jamono boo xam ne bi anglais yi ñoom seen bopp dañu ñëw xeex ak français yi jël Saint-Louis jël gore fekk ñoom déjà jëloon nañu Gambie mhm. boole nag léegi Saint-Louis euh, Gorée ak Gambie ba ca Sierra woon mu nekk benn dëkk ñu tudde ko de province of senegambia mhm. ci ay jamono ñoom ñu defoon saint mu nekk seen capital capital ba gouverneur bi nga xam ne ay anglais yu weex tàll lañu nga xam ne bi ñuy conquérir quatre contingent wu quatre cent hommes lañu ñoo ñëw xeex ak tubaab yi daane leen jël Saint-Louis sanc fa moom ko mu tuddoo ko province of Sénégambia mu doon en 1763 ñu créé province of Sénégambia Saint-Louis nekkoon capitale bi Gambie ci boppam su ñu tuddee Fort James nekk la capital économique de sorte que temps yooyu anglais yi ñëw moomoon foofu yëpp bi mujj bi nag mu amee ay accord ci digg français yi ak anglais yi ci noonu lañu ñu delloowaat Saint-Louis ci noonu lañu ñu delloowaat Gorée ñoom anglais yi nag ñu mujj toog resté Gambie ba conférence de Berlin am ñu séddale ñii jël Sénégal ñii jël Gambie waaw loolu itam dana baax di ko fàttali. loolu mooy contexte bi nga xam ne euh, ci la Sénégal ak Gambie euh, taxawale seen confédération ba ñuy waxtaanee tey mu am surtout euh, à partir de 1981 ci lañ ci tàmbalee waxtaan gannaaw ba président Daouda Diawara coup d'état dalee woon ca kawam boobalee lëkkaloo professeur gis nañu itam ci ay gëstu ne jubluwaay bi moo nekkoon surtout Casamance génn ci ruqe gi mu nekk ndax Casamance daanaka Gambie daf koo xaw a li des ci Sénégal est-ce que am na njeexital yoo xam ne confédération boobu indi na ko muy lu baax wàññi xëy na ruqe gi woon ci Casamance ak jafe-jafe yi neenu itam wàllum affaires étrangères ak communication interne fasoon na lool ci boobule confédération. xam nga euh, dama la dégager le contexte historique bu d'ensemble. Mhm. waaye li indi confédération bi nekkul nekk. Euh, euh, président Abdou Diouf dafa toog toog rekk waxtaan ak Daouda Diawara ñu ànd nekk benn. Hmm. dafa amoon coup d'état dafa amoon coup d'état bu amoon Gambie. Hmm. révolutionnaire ya fa nekk ku koy Samba Sagne jiite leen ñoo jógoon fuqati nguur ga hmm. bëgg a teg gouvernement révolutionnaire loolu moo taxoon président Abdou <laughs> Diouf xam na ne que fii bu amee gouvernement révolutionnaire moom dana gën a yàq ay mbiram ndaxte moom ci boppam ci Sénégal amu fi woon jàmm bu ñu ko mën a waxal. Mhm. dafa amoon opposition. donc noonu la tiite li ko taxal mu yëkkati moo di mu di étouffer mu di carrément rey ñi nga xam ne moo doon révolution boobu samba ku koy saaña ñu war ko ba jàpp ko lañ fa jàpp ci ay nit eh, eh, bari te li indi woon itam révolution boobu moo di ne Gambie dafa nekk dëkk boo xam ne bii anglais yi dañ ko musul développé bi mu amee indépendance am dañ koo def rekk mu nekk dëkku tourisme sexuel yàlla ma yàlla baal ci wax bi maanaam hôtel yi mi nga fa euh, le niveau de la vie euh, yomb na ñoom seen jigéen yi jóge ñii jóge ay Hollande ñii jóge ay Suède ñii jóge ay Danemark bu ñu soxlaa ay far jóge seen dëkk ñëw ci Gàmbi ñëw fi jël ci xale yi Gambie yi ak ci xale yi Sénégal yi fay ñëw ak xale yi Casamance <laughs> fay ñëw ucc seen far yóbbu leen seen i dëkk ñu nekk fa ñu nekk Suède ñu nekk ay Danemark ñu nekk ay Hollande loolu la ñu jàppe woon Gambie ko solo lool fooma bari fa lool baar bari fa lool orchestre bari fa lool nu jeunesse si ñoom si poppam ñi nga xam ne ay lañu nga xam ne jàng nañu xam nañu gis ne nii mënuñu demee mm-hmm. dëkk boo xam ne bi tourisme sexuel rek moo fi am ay nit ñu jóge fële ñëw di fi sanc def ko rek foo xam fi seen féexluwaay la mm-hmm. amul agriculture amul industrie système éducatif mooy système anglais bi fi anglais yi bàyyi woon loolu moo indi woon mécontentement bi mu amoon nag ay force vives ñu nekk Gambie di xeex yàgg di ko xeex di lëkkaloo ak les forces vives yi nekk fii Sénégal ak forces vives yi nga xam ne ñoo ñeex Guinée Bissau ñoom ñëpp ñun man nañ ci wax ndaxte dañ daa gis ay nit yu jóge foofu di ñëw ci ñun di toog ak ñun di wax di jàmbat li xew Gambie loolu dafa nekk loo xam ne mënuñu ko xatte mu am effervescence révolutionnaire te nekkoon ay intellectuel nga xam ne yeewu nañu bëgg nañu seen dëkk bëggu changement yépp daawar de jaawara xatal na leen ñoom ñépp ñu génn ku ci nekkul Angleterre yaa nga Hollande wala yaa nga euh, Suède walla yaa ngi fii Sénégal yu ci bari ñu ngi nekkoon di jàngale ci université Dakar ñun amoon na ci ñoom ay professeurs yoo xam ni ay Gambien lañu dëkk ak ñoom di leen gis ñuy am ay jàmbat ci seen dëkk xam ne dëkk ba ni mu taxawee ak nu mu tëddee dafa jaaduwul loolu moo indiwoon soulèvement bi te nag Abdou Diouf xam ne loolu liy raam ci ñag bi la jëm. Mm-hmm. te boobu temps ni ma la waxee ñoom ñu am na seen maanaam ñu leen tuddee comrade bu ñëwee comrade rek la ñuy wax comrade comrade comrade comrade di jàmbat seen réew la fa nekk mm-hmm. nam ko la ko tubaab yay yàqi nga xam ne musique rek rajo sud ñëpp a ko xamoon matin no soir musique rek rek rek rek rek rek la ñuy teg mm-hmm. musique rek la teg mm-hmm. loolu moo indi woon soulèvement bi ñu renversé Daouda Diawara loolu moo indi président Abdou Diouf mobiliser force armée ñëw toog mu nekk une force d'occupation ñu bëgg ko nag normaliser ko tuddee ko confédération waaye fekk na Gambie yi seen bopp gis nañu xam na ni ñi armée d'invasion la mhm. day ñëw rek pour téyel Daouda Diawara nguur gi nguuram sampaat ko surveiller ko waaye jubluwuñu ngir defar Gàmbi jubluwuñu ngir defar diggante Sénégal ak Gàmbi te fekk itam nag problème mu Casamance moom dafa masa yàgg posé wu ci réew mi mhm. de sorte que loolu moo di contexte coup d'état ba contexte intervention ba mhm. ñu indi seen institution Euh, confédéral mais yàggul te mënuloon a yàgg itam waaw parce que dafa am un nationalisme gambien boo xam ni bi kenn nanguwul sa dëkk ñu ñëw envahir ko ah président xam ne nit ñi bëggatuñu ko yàlla ma yàlla baal yow nga war ko fee nekk téel ko tànk war a def lu ko neex. Hmm. loolu moo fa am ba nii euh, Yaya Jammeh ñëwee toog moom itam indi nag beneen politique mu di politique autorité bu wóor ak redressement de la Gambie moo taxam metti ci ñoom alors ban njeexital la confédération boobu amoon après ci ci ñaari réew yi surtout ci Sénégal parce que du woon rek pour intérêt bi ni nga ko waxee Abdou Diouf itam amoon na njàkkare boobu jamono ndax euh, taxu ko woon a nekk ci jàmm ak opposition bi est-ce que confédération boobu ba mu taxawee le 1er février 1982 la euh, tàmbalee dox est-ce que subitement gis ñu benn euh, coppite wala lu mu gën a dëgëral ci ñaari réew yi. Ah, historien yi. Hmm. ak euh, ñiy def géopolitique war nañu di ci dellusi si di ko analyser waaw man awma ci éclairage intellectuel approfondi gisuma ci benn étude hmm. gisuma ci benn étude te nag war na ñu étudier phénomène yi lan indi gis nañ daal ne dafa gën a euh, renforcer le nationalisme gambien hmm. nationalisme gambien ndaxte kenn nanguwul sa dëkk ay armée étrangère ñëw di ko occuper pour di garder président ba waaw loolu it ñàkkul am na ñu mu wuyoo ci mouvement indépendantiste Casamance ñoom itam ñu mën cee doole nga gis ñoom mouvement indépendantiste yi ni ñu amee seen base arrière euh, sur la Gambie ak toute l'économie forestière bi ñu développé et euh, sur la Gambie et tout l'échec bi nga xam ne moom moo amoon pour construire le pont pour mën a relier Sénégal ak Gambie étude boo def rek Gambie rejeté ko étude boo def rek Yaya Jammeh rejeté ko ndaxte dafa nekk ci des positions nationalistes de positions nationalistes moom la ñu nangu euh, Sénégal di dëkk di ñëw di leen noot di fi indi seen i nit di leen surveiller di leen garder loolu phénomène de rejet boobu euh, man moom laa gën a gis ci phénomène confédération bi hmm. ñàkkul nag am na yeneen phénomène hmm. loolu nit ñi ñiy def géopolitique ak yooyu ak yenn historiens yi nga xam ne ils s'occupent des temps euh, présents ñoo ko war a analyser. est-ce que am na tam lu mu yokk ci diggante askan yi euh, surtout ci ni mu doon doxee ndax amoon na jaxasoo ci diggante xëy na autorité yi population yi euh, lu ñu jàpp ne lii tam ci fédération diggante Sénégal ak Gambie confédération bi ci la juddoo. xam nga population yi ñoom amuñu problème ndaxte benn peuple la rek joolaa yi ñu ngi Casamance ñi ngi Gambie soose yi ñu ngi Casamance ñu ngi Gambie pël yi tam noonu lañu wolof yi ñu ngi noonu au euh, seetloo waa Kawlax yu ëppoon ci seeni li ñuy jënd Gambie lañu koy jëndee lu ëppoon ci <laughs> jënd Gambie lañ koy jëndee man jamono yooyu fekk na man j'étais conseiller pédagogique itinérant dama daa voyagé toujours di traverser euh, la euh, comment dire euh, le bac hmm. da ngay gis ni nit ñi sénégalais yi nañu fa booloo ndi ñu nekk ak Gambie yi entre les peuples am problème mënul am problème peuples yi benn lañu. ñoo bokk benn histoire. ay ah, yokku ci dara yokku ci na au niveau maintenant comme ni ma la ko waxee rek hmm. donc certain nationalisme mu nekk lu normal parce que kenn nanguwul benn armée ñu bàyyi fële dëkkam ñëw toog occuper sa kii sa réew di garder sa président nekk fa ay forces armées il mel ni tey jii wax naan armée française France dooral yooyu <laughs> loolu la ah, dafa nekk armée d'occupation mhm. te nag mu am susceptibilité itam euh, euh, diggante Sénégal ak Gambie Sénégal moo ko ëpp taille moo ko ëpp euh, koom-koom moo ko ëpp ay force ñoom itam dañuy gis seen bopp ci yu bari en tant que les autorités mhm. waaye population yi ñoom ñu nekk fii ñu nekk fii am na ñoo xam ni sax ñoom ou dañ koy wax ba léegi sax c'est des Sénégalais mais ils sont plus à l'aise sur le territoire gambien mhm. que sur le territoire sénégalais. dëgg la loolu ba tey mi ngi wéy. ba ba tey mi ngi am ba tey mi ngi am mhm. kon nag ñi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ñoom ñoo war di bàyyi xel ci yu bare bari bari mhm. te itam société civile dañu war a seetaat seen taxawaay. ndaxte diggante Sénégal ak Gambie ni ñu nekk nii des na war na am une boo xam ne bi dañuy militer pour confédération wala fédération diggante Sénégal ak ak Gambie comme ni ñu war a militer fédération ou confédération entre Sénégal ak euh, ak ak Mali tey yii dans la classe politique amul kenn koo xam ne kii du wax du def discours am te waxul panafricanisme mm-hmm. waaw mais panafricanisme nag dafa am fu mu war a jaar fu mu mën a jëkk a jaar moo di les voisins immédiats diggante Sénégal ak Gambie ñu war a mën a nekk benn am ay institution fort mm-hmm. nga xam ne du nootaange du Sénégal mooy noot de Gambie mooy rocceki itam di def yenn yi ñu am la même chose avec euh, le Mali le moo gën a rafet ñuy célébrer la dislocation de la fédération du Mali ak di célébrer la dislocation de la confédération de la Sénégambie mm-hmm. classe politique ñi ngi jëm ci élection présidentielle mm-hmm. il y a plus de cent candidats loolu dafa ëpp. ëpp naa nga ci gis mu posé problème diggante Sénégal ak Gambie Sénégal ak Mali wala sax Sénégal ak Mauritanie mm-hmm. Sénégal bu Sénégal la ñuy posé naan dañoo ci pétrole bi mm-hmm. dañoo nax ci gaz bi dañoo nax ci lii dañoo nax ci laa alors que amu fii il faut que classe politique bi ak su ci suivi ñu am un discours raisonné man a poser problème ak revendication yi nga xam ne mooy revendication ak problème masse fondamentale yi yi hmm. nga xam ne moo mën a yooyu yëm ci suñu réew yi moo ko mën a teg ci yoon moo ko mën a jëmee kanam hmm. waaye nguur ut nguur ut nguur ut nguur rek te boo jotee nguur yi doo xam loo ciy def hmm. mais loolu problème la waaw doy na waar alors loo ñu mën a wax it ci fonctionnement euh, sénégal Sénégambie boobu naka la doon doxee euh, gis nañu ne euh, daanaka ci institution yëpp Sénégal ñoo ci ëppale woon euh, lu ci mel ni assemblée bi Sénégal amoon na quarante membres euh, Gambie am euh, vingt membres loolu jaadu na parce que réew yi tolloowuñu taay ni nga ko waxee léegi tolloowuñu itam ay population léegi ni ñu ko doxalee woon noonu est-ce que fonctionnement bi jaaroon na yoon ndax amul woon rëkk-rëkk nee naa jotuma ci am une analyse approfondie. d'accord. waaye li ñu seetoo rek am na ay réunion interministérielle <laughs> réunion de la confédération waaye waaye lan la jur c'est un problème gisuñu ko hmm. man de gisuma li ñu jur hmm. ñàkkul nag am na waaw comme ñun ay scientifique li ñu bëgguñu joxe suñu kàddu ci loo xam li <laughs> wóoruñu waaw leerul dama ci xaw a réservé mhm. moo tax ma ne la li def géopolitique ak yenn historien yi nga xam ne historien bi temps présent mhm. war nañu gën a càmbar di gën di dellu ci loolu mhm. ak société civile bi ak la classe politique ñu man di ci wax seet lan moo doon les facteurs d'échec ñàkkul am na ay facteurs positifs ñu xam ne lii jot na ko fi indi ñu mën a ko ci loolu. évaluer ko natt. loolu mooy loolu mooy travail d' inventaire. Mhm. travail d' ñun mhm. dañ ko dul def. parce que tey am na lu ñu war a mun a téye ne lii ci confédération Sénégal bi la jóge leneen ñu ne lii ci fédération du Mali la ko Sénégal jëlee lii Mali ci la ko jëlee. exactement li nga wax dëgg la. wane nañ ko Xaybar da mhm. dañ ko sax fàtte yow boo ko deful émission mhm. man yaa ma koy fàttali de yow yaa ma koy fàttali dëgg la dëgg la ñu bëri fàtte nañ ko <laughs> yooyu alors que dañ dañ ko war a def ci agenda national société politique bi jël ko en charge société civile bi jël ko en charge population yi jël ko en charge mhm. noonu la ñu mën a joyante suñu réew yi noonu la su mën a tege ci yoon. Mhm. parce que yi ay expérience yu am solo la. mais Sénégal nee la dafa nekk dëkk boo xam ne bi yàlla daf ko sédd ci yu bare bare. Mhm. yàlla may na ko tur may na ko sutura ak teraanga boole na ko ak ay wàll yu boole na ko ak ay intellectuel yu bare bari boole na ko. ak ay ressources yoo xam ne yi am na solo kon nag ñi fi nekk war nañ di ànd ak jàmm ak salaam di toog di xalaat di réfléchir di seet nag la ñuy jooyanteeg naka la ñuy tabaxee réew di dellu ci événement yooyu mu nekk ci calendrier national bi mais dafa war mhm. li ci xalaat di seet lan la fi indi ak ci lan la ñu war mën a jëm ndaxte c'est vrai que CEDEAO mi ngi fi waaye <laughs> CEDEAO gis nga liñ ciy wax liñ ciy sikkal CEDEAO boo xam ne bi gis nga <laughs> mbiru encore euh, bi fi Yaya Jammeh nekke ñu xupp ko bëgg a dara yëpp dara ci kawam mais politique du noonu rek faw ngay am anticipation mais faw nga mën a jiital jàmm ak salaam pour mën a éviter yenn conflit yi mm-hmm. waaw. ndaw man man man noonu laa ko gisee. dëgg la man noonu laa gisee waaye ñun eh, dañuy xaw di fàtte. Mm-hmm. dañuy xaw di fàtte malheureusement ñun intellectuels yi suñu bopp. Eh, suñu taxawaay ci wàll yooyu war nañu ko seetaan mm-hmm. surtout nag ñi nga xam ne ñooy historiens yi war nañ ci di gëstu ñi nga xam ne itam ay euh, géopolitique la ñuy jàng ak di ko jàngale war nañu ñëw di ko gëstu ndaxte loolu moo nekk le vécu des peuples te loolu moo war a nekk l'avenir de ces peuples surtout que ñu ngi wax panafricanisme di wax unité africaine ah, ah, lii ay expérience la ci ndax boo jaaree ci lii euh, di nga am loo ci jàngee euh, peut-être erreur yi amoon démb ba tax doxul euh, ci li nga jëm di nga ko mën a moytu fa nga amee woon ndam démb itam da nga ko gën a xëy na dëgëral yokk ca farlu ba Euh, loola ñu mbébét mu sotti mooy Afrique doon benn réew yi mën a ànd doon benn def ay bloc euh, suqaliko gi gën a yomb alors euh, professeur ñu jàll nag. xam nga xam nga li nga wax mhm. <laughs> dafa am solo. Mhm. ndaxte da ngay gis ñun suñu société bi elle est très dynamique. yaa ngi leen di gis wax ba dem ay RDC. Mhm. silim bi gis nga ñuy wax di jos ba Burkina la bari citoyen hmm. waaw waaye nag bay say tànk waaw bay ci sa weeru tànk <laughs> ba bay ci sa weeru tànk Qu'est-ce que la société civile fait en direction de la Gambie, rapprochement entre le Sénégal et la Gambie hmm. Qu'est-ce que la société civile fait entre le Sénégal et la Mauritanie Qu'est-ce que la société civile fait entre le Sénégal ak euh, Mali entre le Sénégal et la Guinée peut-être yooyu mooy suñu question yi nga xam ne moo ëpp solo mm-hmm. moo ëpp solo mais duñ ci wax wolof nee na gën a jege gën a yey ñooñu gën a jege ñooñu gën a yey mais duñ ci wax duñ ko laal mm-hmm. <laughs> te réew mu ci ne am nañoo ak moom histoire cosaan loo xam ni. waaw mais ñi ñu nee ñu wër ñi ñëpp ku ci nekk dafa am lu ñu bokk. dëgg la ñun bi ñu nekk année première année géographie la ñuy jàng la culture sénégalo-mauritanienne. ñu professeur yi nga xam ne ñoo fi nekkoon mu di ay Bardé ay ay ay ay Toupé ñoom ñëpp xam ay géographe lañu daawuñu toog. semaine ñaari semaine demuñu Mauritanie lu ëpp seen recherche ma nga woon Mauritanie ñu la cuvette sénégalo-mauritanienne naan tous les bassins sédimentaires boo gis am na pétrole am na gaz te ñun mënuñu toog am pétrole am am gaz te loolu moom la taarix bi indi loolu la histoire bi indi nga gis suñu diggante ak ak ak ak Mali ñu ñu mu demee nga gis itam suñu diggante ak ak ak Gambie donc ñun am nañu lu ñu bay yoo xam ne lii war nañu di ko wax di ci yëngu mu nekk suñu programme waaw def ñu ko. Mm-hmm. doy na waar alors ñu ñëw nag professeur ci li euh, sabab waxtaan wi mooy euh, tàqalikoo gi diggante Sénégal ak Gambie ci confédération boobu ñu sekkoon euh, atum 1982 la tàmbali woon waaye taxu ko gudd fan ndax 89 tas na juróom-ñaari at kon la lëkkaloo boobu am lan moo indi tàqalikoo gi mais tàqalikoo bi mënuma la wax les événements précis yu ko indi mm-hmm. mais li nga xam ne moo ko lal moo di ne nationalisme gambien ndaxte ñoom kenn du nangu si dëkk ñu koy occupé mu am armée d'occupation te itam nee la war nañu di càmbar bilan bi sur le plan économique social et culturel naka la mën a tëddee waaw man loolu awma ci benn firnde en tant que scientifique donc mënuma ci sori te amatuma ci benn fàttaliku nag de manière très précise. Mhm. par rapport à ces événements là. Mhm. waaye daal euh, wax nañu ne dem nañu ba xëy na intérêt yi nekkatul benn ku nekk di xëcc jëmale sa boor euh, ñàkkul nationalisme gambien boobu nga tudd euh, bokk na ci li ko sabab effectivement itam gisuñu ci gëstu benn événement bu ñu wax ne lii moo sabab Euh, loola am. du solo du solo amul amul donc gëstu yi ci war a am amu ci te pourtant lu lu am am solo la. Euh, mais lu war la diggante Sénégal ak Gambie lu war la sax effectivement. lu lu war la lu lu war la. Mhm. nous en tant que des intellectuels loolu mooy suñu liggéey. la classe politique aussi loolu mooy liggéeyam la société civile itam loolu mooy liggéeyam. Mhm. loolu nag dafa des malheureusement. Mhm. gis nañu itam ne càkkutéef gu ngir tas gi am moom si Sénégal la jógee donc ñàkkul Gambie comme ni nga ko waxee nationalisme bi moo fa bëri ñoom ñu xëcc lu bare bari jëmle seen boor wala fippu gi daal fës ci boor boobu ba Sénégal gis nañ xëy na mais fippu bi fippu bi fippu mënul ñàkk ñaanal armée d'occupation moo am. Sénégal moo yabal ay takk der. di di di di di. yëre sécurité réew mi. mel ni ñoo ko moom. Ah, ah, mi ngi noonu comme ñun tey jii ni ñuy jàmbate euh, France présence française comme ñu nga gisee Mali ni leen nga fabee seen bagage par opération Barkhane ni nga gisee waa Burkina yi tam lañ fa am ak Niger na France takk leen seen bagage dem mais loolu la. maa demul woon bay nuru sax beneen xeetu colonisation bu Sénégal bëgg a def. colonisation ah, lay doon parce que boobu ñoom ñu ngi jóge ci nooteel dañ leen a nootoon ba ñuy doog daanaka moom seen bopp. moo tax man na leen nationalisme booba mm. def ko gën a exacerbé gën a exacerbé mm-hmm. te itam na contrôle douanier bi am loolu bi loolu la ñëw li ñu war a def mm-hmm. ndaxte ñi ci dem daay jëw facilement di ñëw di ravitaillé wu Gambie loo soxla na nga Gambie mm-hmm. bi dee ba mu am nag léegi frontières yi demee nii garde frontières yi douanier nekk nii force d' occupation yu nekk nii li amoon dañ ko mën a am mhm. nit ñi dañ koy ressentir dañ mhm. professeur Mansour Aw la ñuy dalal ci démb ak tey di waxtaanee confédération bu bi ñu taxawaloon ko 1982 mu tas 1989 alors ginnaaw jëflante googa diggante président Abdou Diouf ak euh, président Daouda jaawara mi nga xam ne moo nekkoon vice président ci confédération bi Abdou Diouf nekkoon président bu weesoo jëflante ñaar ñooñu euh, wàcc euh, ba ci tey professeur noo mën a jàngatee Euh, diggante Sénégal ak Gambie yaaya Jammeh jaar na fi ba tey aadama Barrow ñëw lan la mën a jàpp ci jëflante ci diggante ñaari réew yooyu euh, ba confédération bi taseeg léegi. xam nga di euh, Yaya Jammeh moom dafa redresser la Gambie. Hmm. Yaya Jammeh dafa redresser la Gambie. wax nañ ko nag lu nekk. Mm. dictateur laag violeur laag lii laag lii la lii la lii la. soppi na fa lu bari. mais ba mu ñëwee xam na ne dëkk bi mënul demee nii. Mm. nekk un pays de tourisme sexuel amul benn projet bu fi nekk. li mm-hmm. lu waay neex def un euh, laisser aller loolu la Yaya Jammeh rectifié. waaw ñun nag Afrique président bu toog am autorité rek dana la dana la xeex tubaab yi ñoo lay jëkk a xeex tubaab yi ñoo lay jëkk a xeex de permettre nag opposition ñoom itam ñu jaar ci profito ci fragiliser la taale la mais duñu mën a teg lenn loo xam ne nii dana ban li fa newoon boo mayul bu ñu ñëwee sax yëf yi gën a bon mais di gën a bon Adama Barrow tey jii nii moom <laughs> bëggu mu bëgg ci affaire intérieure de notre pays mais gis nga moom li mu def genre ko d'état la dafa nekkul di xeex démb depuis taawu Daouda Diawara continué ko ci ci ci ci ci ci Yahya Jammeh euh, euh, waroon na jël nguur gi woo ko moom mu ñëw fu mu ne carte moom mu toog jàngu la toog nag léegi. di jëfandikoo ak ña nga xam ne <laughs> ñoo di les partisans de eh Yaya Jammeh tey jii moom Gambie ban xar kanam la am véritablement hmm. la question qui se pose fan la Gambie actuellement hmm. lan moo nekk en tant que politique dominante mu di ay questions yoo xam yi man pas de réponse hmm. personnelle mais li am moo di ne classe politique bi xaajo nañu ci nguuru Adama Barrow xëy na Adama Barrow moom <laughs> nitu jàmm la c'était un homme d'affaires il est dans les affaires waaye nag les affaires d'État mais beneen affaire la yeneen mbir la loolu itam ñu war def une analyse de contexte une hmm. analyse de la situation mook Sénégal boobaak léegi seen jëflante am na ah, ay moom léegi léegi moom tane na moom waaw léegi tane na mais amoon yëngu woon na itam tuuti su su Yaya Jammeh notamment ah non non non nee naa la Yaya Jammeh dafa ñëw moom indi politique nationaliste hmm. ñu ne pont mënul du fi am parce que arrange wu ko moom muy soutenir ci li ñu wax le mouvement indépendantiste casamançais def leen jox leen ay base arrière développer l'économie forestière fi ñu daggee bant yi ñu interdit ko moom mu koy transiter par son pays ba ñëpp xam ko mu leer nañ moom dafa nekkoon am par rapport ak li amoon diggante Sénégal ak Gambie hmm. loolu moo tax itam Macky Sall mënu ko woon a supporter hmm. loolu moo tax ñu xeex wa avec la CEDEAO hmm. mu dem yoonam Adama Barrow ñëw toog Adama Barrow moom nekkul ci politique moom c'est pas un politicien c'est pas un politique dañ koy woo rek en tant que élément société civile jox ko nguur yi pour redistribuer les cartes waaye ngoor neex na neexaay boo xam ne boo doot boo toogee da ngay fàtte say promesse la mu waxoon moom trois ans la waroon a toog rek organiser ay élection mais génne na ci loolu bu yàgg mm-hmm. ñu ngi nguur léegi léegi amuñu mënuñu wax ne am na problème bu fës entre Sénégal ak Gambie waaye li waroon a am wala une véritable politique d'unité entre Sénégal ak Gambie man de gisuma ko hmm. gisuma ko ñàkku nag ni ñaa ngi dem ak di dikk hmm. ñaa ngi dem ak dikk waaye da dégg yenn saa yi ñu def de grand détour di ko jaar ay Tamba di ko jaare ca kaw mën a dem en waaw est-ce que Adama Barrow tam reyul élan euh, bi yaaya Jammeh jëloon parce que ba mu ñëwee léegi gisuñu benn yokkute bu am ci Gambie Covid bi bi mu fi amee euh, professeur daanaka ñun ñoo leen sax mujjee may ay vaccin euh, suñu ay médecins itam ñoo fa dem jàppale leen mu mel ni kon Gambie doxatul. mais Gambie doxatul Gambie amatul benn visage bu ñu ko a waxal. parce que nee pas un politique hmm. c'était un homme d'affaires dans la société civile ñu indi pour affaire une transition moom moo pouvoir hmm. les véritables politiques dafa nekkoon di xeex depuis taawu <laughs> euh, Yaya Jammeh ñoom ils sont exclus du pouvoir te moom léegi moom Barrow ma déggoo ak les anciens partisans de Yahya Jammeh et il gouverne avec ces gens donc fan la Gambie jëm mais kooku c'est question qui reste posée. Sénégal tam mel ni ku wéy di taxawee taxawaayu kilifa. bu ñu seetee par exemple Covid bi niñ ci amee woon ak même yenn situation yi bu ko Gambie di euh, euh, traversé gis nañu quand même président Macky Sall daanaka ñenn sax dañuy wax ne yaay euh, Adama Barrow booyam la wala rakkam la wala daal mu ko def loo noona lay lay defee. defe naa Adama Barrow moo ko war a maga. am na mais am na ñuy def yooyu commentaire par rapport ak ni président Macky Sall di taxawee ci. mais mais nag facteur positif moom dañ koy favoriser rek. que moom mu def action positive envoyé ay médecins et envoyé ay médicaments loolu loolu lu mën a rafetlu la mhm. lu war la nit bu defee lu baax da nga naan lii baax na waaw parce que dimbali nit ñu feebar parce que li ñu mën a wax wax wax mhm. mooy le Sénégal moo tane Gambie quand même mhm. en ressources humaines en ressources économiques en ressources géostratégiques kon nag ñun war nañ ko mën a taxawu. surtout bu ñu xoolee li ñu boole woon démb. te li ñu boole woon démb ak li ñu boole tey ak ëllëg moo ëpp. Hmm. loolu moo tax ma ne tey jii ñiy laaj réew mi war nañu poser la question de la fédération de la confédération avec la Gambie mën a boole réew yi ñu nekk benn. comme li ñu war a boole Sénégal. ak Mali kam li ñu boole Sénégal ak Mauritanie ak Mauritanie dans un cadre d'état confédéral hmm. ñii am lii ñii am lii loolu bu ñu ko defee rek ñi ngi def un pas en avant ci sur la voie du panafricanisme ñu hmm. xam ne dana dépasser les structures régionales là hmm. ay CEDEAO comme ni mu tëddee comme ça nga xam ne tey li mu waroon a liggéey sur le plan économique defutu ko et dafa nekk un gendarme rek pour la cause de gouvernement. Hmm. pont pont bi peut-être euh, jéego bu am solo la. si diggante ah, ñaari réew mi mais c'est très important. Hmm. kooku c'est un grand acquis. Hmm. c'est c'est un grand acquis euh, le pont entre le Sénégal et la Gambie. yooyu dafa war a am infrastructure yoo xam ni mën nañ ko bokk. war nañu am lu mën a unifier aussi sur le plan euh, mais mais euh, euh, sur le plan agenda culturel soose yi nekk Gambie yi nekk Sénégal communauté wolof yi communauté toutes les communautés qui sont à cheval sur ces deux peuples là sur ces deux pays là war nañu am loolu dafa nekk yoo xam ne yii société civile war na ci liggéey comme la société politique aussi war nañ ci liggéey war na am ay ay structure ay infrastructure d'intégration entre ces deux peuples là man foofu laay waxee dama ne diggante Sénégal ak Gambie war nañu weesu li amoon mhm. war nañu gën a jëm kalam pour ñaari dëkk yi nekk benn mhm. à xanaa ñu jeexal ak euh, peut-être fooy séentu ñaari réew yu ëllëg est-ce que li nga wax ni mun nañ ko jàppee lu mën a nekk euh, diggante Sénégal ak gàmb yi dem ba nekkaat benn ci ni nga gisee ni yëf yi di dem ak est-ce que tam am lu lu lu mun lu ñu mën a jàppee euh, signe boo xam ne dina tax ñu yaakaar ne ñaari réew yi daal ëllëg faw ñu ànd ndax boo xoolee diggante Sénégal li féete fii. ak la ca des di Casamance Gambie moo dox ci diggante bi pont Sénégal bi mhm. wone na effectivement que ni sax mënuñu tàqali ko moo waral euh, ñu taxawal fa pont boobu mais est-ce que gis nga comme li ngay wax ni léegi ñu dem ëllëg au-delà. loolu moo war nguur yi ñoom xëy na gisuñu loolu wala bu ñu ko gisee itam duñ ci liggéey mais peuple yi seen bopp nee war nañu am seen agenda. société civile war na am agenda classe politique progressiste yi itam qui se réclame du panafricanisme war nañu pousser pour aller dans ce sens là nee naa la ñaari dëkk yi histoire moo leen boole ak géographie nee naa la loolu yàgg na depuis avant Jésus Christ ba tey jii nii moo ñu taxali ko moo ñu taxali ko mm-hmm. kon li ci des rek moo di pour que mu nekk un programme nit ñi war ci liggéey di ci xalaat intellectuel yi itam war di ci xalaat di ci bind di ci wax di ko dox mm-hmm. mais loolu moo amul malheureusement loolu moo amul xëy na dinam ëllëg ñu dundee yaakaar gërëm la bu baax a baax ci waxtaan bi am na solo lool professeur Mansour Aw comme ni muy demee saa su nekk heure bu ñu waxtaanee yow jële ci njariñ di yaakaar ne itam ñu ñu doon déglu yépp jële nañu njariñ ci waxtaan bi seen émission démb ak tay woon ci réew mi FM jërëjëf professeur jërëjëf euh, Fatou jërëjëf ak seen auditeurs yeeg seen auditrices yi baax na jërëjëf. ñu yendoo ak mm. jàmm jërëjëf professeur Mansour Aw moom la ñu doon dalal ci seen émission démb ak tey muy professeur d'histoire xelam màcc lool ci taarixu réew mi ak réew yi ñu wër te ñu mosoon a sekk ak ñoom dara tey ñu doon waxtaan euh, justement euh, li doxoon diggante Sénégal ak Gambie muy confédération bi ñu sekkoon càmbar nañu ko donte nag liggéey bi ci war liggéeyu xayma bi ñaari réew yi gisuñu ñu def ko waaye jëm nañoo fàttali xew-xew booba nga xam ni Euh, moo amoon te euh, tasoon 1989 30 septembre kon ne gi ni démb euh, ci samedi ji ci la tàqalikoo gi amoon diggante Sénégal ak Gambie ñu ngi leen di gërëm ci ànd beek ñun gërëm leen itam ci safo bi ci démb ak tey gërëm jaawo jàllo mi ne woon ci jàppandal gi dig leen daje beneen dimanche incha allah ci beneen démb ak tey yenu leen ak jàmm